وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu di ñu bàyyi xel ak fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne ñu ngi koy jublu di bisu màggal nga xam ne bisu sant yàlla la sëriñ bi jox ci ndigal mboolem ñi nga xam ne ay jullit lañ wala ñu aju ci moom te bëgg mbégam wala mbégu sëñ bi nekk seen mbég sëñ bi wax ñu koy sant la yàlla ci bis bi nga xam ne ci la natt yi nga xam ne amlante woon na ko ak tubaab bi tàmbale woon waaye ay may ak xéewal yu bare bari nag juddoo ca natt yooyu ak ca coono yooyu ba tax mu wax ne cantuk boppam sax doyu ko ci mu sàkku ñëpp ñu ànd di ko ci sant yàlla saa yu bis bi dellusee ñuy ñaan yàlla ñu egg ci bis bi ak jàmm te defee ko ni nga xam ne noonu lañu ko sëriñ bi digale ñu ko xamee nag daayira Muxaddamatul Xidma baaxoon na weeru safara bi mu tàmbalee ba léegi ñu ci amale jataay yu bari jataay yu xam-xam yoo xam ne dañ ciy waxtaanee loo xam ne luy yitteel murit yëpp la luy yitteel jullit yëpp la aju ci yoon wi aju ci sëriñ bi aju ci bis bi waaye aju nag ci lépp loo xam ne rek tomb waxtaan boo xam ne bu am njariñ la boo xam ne danañ ko mën a yóbbuloo ca bis boobu euh, jataay yooyu nag tey bu tey bi benn la ci yooyu nga xam ne dañ ci war a ànd ci benn tomb boo xam ne ku wax ak murit ku wax doxeenu yoon wi sa xel dina ci dem muy laaju ci mbirum daaira nga xam ne benn xeetu nosin la benn xeetu doxaliin la woo xam ne wu yàgg la ci yoon wi wu ci am cosaan la te am solo lool nag ndax day bokk ci li nga xam ne day gën a jëmmal bennoo gi ak doole ji nga xam yoon wi am na ko ak liggéey yi nga xam ne yoon wi war na ci taxaw ak murid yi war nañu taxaw saa yu nekk daanaka dafa def ci am role bu am solo boo xam dana ko ci joué te rôle boobu nag lay tax dëgg-dëgg daayira di ko gën a man mooy lëkkale gi mi lëkkale mbooloo mi ba ñu nosu ci genn kàddu nekk genn buum wut am doxin ak programme boo xam dañ cay tënku ba yéene yi di mën a sotti ku ne xam na ne yoon bi mu sosoo ba léegi am na ay réalisation yu bari yoo xam ne taxaw na ay liggéey yu bari bari yoo xam ne ci lëkkalagoo benn googu ak benn baat boobu ci la taxawee te loolu nag ku ko wax xam ne da nga tudd daayira da nga wax rôle boo xam ne am na ko danga wax tamit jafe yoo xam ne ñàkkul léeg-léeg ñu jànkoonteel ko ak yenn ci ay saafara yoo xam ne xëy na ak wala ay ay ay solution yoo xam ne buñ ca jaaree mën naa am yenn ci jafe-jafe yoo xam ne dañ ko jànkonteel ci yenn ci ndaje ci mbooloo yi rawatine daayira yi danañ ko mën a amal solution kon loolu dëgg-dëgg moom mooy solo si waxtaan wi tey ñu war ci ànd nag suñu mbokk muy gëstukat di sëriñ Abdoul Ahad Bousso Alxaaji Cheikh nga xam ne kenn la ci membre daayira Muxaddamatul Xidma waaye tamit nekk gëstukat nekk borom xam di kuy faral di taxawee xeeti jataay yu mel nii Euh, ñu rafet lool xam-xamam rafet lool tamit ay gëstoom ci yoon wi ak tamit ci lépp loo xam ne lu jëm ci doxalinu dëkk bi la doxalinu doxalinu réew mi la mu ci def ay gëstu nekk koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu euh, ci wàllu euh, li nga xam ne moom mooy wàllu koom-koom ak wàllu jëflante yoo xam ne day jëm ci diggante ay ay ay xeet nga xam ne loolu mooy spécialité ci wàllu tekki ay langue tamit loolu tamit euh, màcc na ci diggante wàllu français ak arabe ak anglais kon mel na ne bu ñu waxee ci lu jëm ci wàllu organisation bu ñu waxee lu jëm ci wàllu mbooloo wàllu ressources humaines loolu day nekk domaine boo xam ne bu bu bu mu bu mu mu xereña la bu mu xam la te yaakaar naa buñ ñu ko teewloo dana feeñ ci waxtaan wi kon ngir bañ a gën a guddal rek dañ jox suñu blaat mu nuyoo su ko defee ñu ñëw moom nag ci waxtaan wi dëgg-dëgg ci ni ma ko présenté léegi ci thème bi ak solo si waxtaan wi sëñ Abdou Lahad kon ñu ngi lay dalal jàmm ci jataay yi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma moo koy taxawal ci te muy jàll ci seenu euh, jumaa ji muy Moukhaddamatoul Khidma TV ak yeneen seen yoo xam ne ak yeneen barabu jokkookaay yi nga xam ne danañ ko jëlee ci ñun di ko tisaare ci àddina bi yëpp kon ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi nga xam ñoo ñuy teewlu ko defee ñu doog a dugg ci waxtaan wi. alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi lasina stafa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki juddu di ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar ci weeru tedd wi ñu nekk muy weer wi nga xam ne sëriñ bi waxoon na sunu borom ci da ko ubbil bunt cant yépp muy weer wii di weeru safar nga xam ne ci def jóge woon dem ci tukkeem bu mag boobu nga xam ne moo ko may lépp li mu ba tax ci may yooyu mu waxoon ñu santale ko sunu boroom saasu su bis ñëwetee kon ñu ciy sant bu baax yàlla ci def gi muy def ay jullit rawatina ay taalibe Cheikhul Khadim di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla wér yaram lool ak gudd fan banaa lii mu fas yéenee di géyal maamum yàlla may ko ci lu kawe njortam bu baax a baax du nuyu mboolem jullit yépp ak mboolem taalibe yëpp fu ñu mën a nekk tey waaj bis bii di ñaan sunu borom mu defal ñu ci tawféex bam liñ ci def lépp ci ñaan sunu borom nangu ko ca dëppale kook li ko sëriñ bi bëgge sëriñ Imaam ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbooleem daayira Muxaddamatul Xidma bii nga xam ne ay liggéeyam yu am solo ñëpp a ngi koy gis te xëy na thème bi ñu tànn dana ko gën a jëmmal muy importance bi ñu am ci yoon wi moom daayira ci jëmmam ak mooy lan comme ni nga ko waxee ci bi sa njëlbéenu wax. kon daal ñu ngi nuyu mboolem jullit yëpp di leen siyaar bu baax a baax a baax. jërëjëf suñu abdulaat ci nuyoo bi xam na dañuy tàmbalee rek ci tàmbalikaay bi mooy ku wax mbir day laaj ñu xam dëgg-dëgg mbir moom mooy lan ak euh, lu ko tax a jóg ak naka la sosoo kon bu ñu waxoon daayra ci koo xam day dégg baatu daayira rek daayira maa ngi ñu bari daanaka néewaana koo xam ne mi ngi yëngu ci xeeti tariixa tasawuf yu bëree bëri rawatina yi ñu xam ci Sénégal rawatina nag yoonu murit te xëy na déggul baatub daayira wala sax mbokk ci daayira di ci yëngu waaye tur wi xëy na baat bi daayira cosaan li mu nekkul wolof baatu arab la waaye buñ ko waxee xëy na baat buñ miin la miin ba léegi mën nañoo ko jàppee sax comme wolof ndax miin ñëpp miin nañ ko di ko waxtaane di ko wax baat bi ñëpp xam ko waaye dëgg-dëgg daayira mooy lan dëgg buñ ci bëggoon a dellu cosaanu baat bi ak ak cosaanu nos gi mooy la daayira mooy lan ak lu ko tax a jóg ak fu mu sosoo. Euh, jërëjëf suñu maam comme ni ñu ko waxee rek daayira mu baat tubaab la mën naa firi yu baree baree bari xay na fi ñu ko jëlee rek mooy bu njëkk ba dañ daan buñ mbooloo mi dajee ñu daan organiser ay mbir yoo xam ne day kii da koy aay kii aay kii aay mel ne ab mbir la moo xam ne day day wër ñëpp daal xëy na baat bi loolu lay xaw a junj rek bu ñu ko wàccee ba suñ jamono rek mooy kuréel kuréel goo xam ne day lëkkale ay nit ñoo xam ne dañoo bokk ab pas-pas ànd ngir doon benn ngir liggéey ci loo xam ne day jëmale kanam mm, lañ nekk mën naa nekk kuréel mën naa nekk mouvement boo xam ne <clears throat> ab mbooloo lay lëkkale moo xam ne dañoo bokk ay gëm-gëm bokk ay gis-gis yenn yenn nit yenn nit saa it ñu am ay jubluwaay yu benn yoo xam ne moom la ñu moom la ñu dëgmal ci seen kanam euh, ci cosaan nag <coughs> yoonu murit mën naa ne ci tàmbali bi ginnaawam sosoo Mbàkke Kajoor euh, sëriñ bi lañ daan jëflanteel yaatoowul woon noonu ba muy dem ay gox goxaan ba xëy na duñ gis sëriñ bi ba mën a dégg am njàngaleem wala ñuy tasaaroo ñoom ba duñ juriñ ba li leen lëkkaleeg euh, sëriñ bi ñu koy soxla dëgg-dëgg ñu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol Daaru Salaam ñëw Touba dem Mbàkke Baari Jolof sëriñ bi dem ci géej gi yooyu yëpp jamono jooju mën naa am ni daayira di amee nii yoon wi doonu ko woon laaj sëriñ bi ku mu wàcce mën na laa yebal ci dëkk boo xam ne boo demee yaay nekk intermédiaire sëriñ bi ak waa dëkk ba <coughs> yow it ngay ñëw di siyaare sëñ bi bu boobaa mbooloo mi tasaaroowul noonu kon boobu soxlawuñ woon li nga xam ne moo tax daayira soso kon mën nañ ne rek ci jamonoy euh, si euh, sëñ bi moom lii xëy na daawuñ gis daayre ndax lu tax mooy yoonu murit tasaaroowul woon murit yi boog tasaaroowuñ woon ci réew yi ba ci bitim réew ba mu nga xam ne duutuñ gis sëñ bi wala leen lëkkale ak moom di jafe bi sëñ bi jógee tamit Cheikh Amadou Moustapha noonu bi mu fi nekkee moom it daanaka euh, yoon wi mën naa ne diggante Touba ak ak njaareem la gënoon a nekk ñeneen seexit ku ci nekk sa dëkk ba nga nekk kon murit yi daanaka ci àll bi dañ gënoon a féete rawatina waa bawal gii demee ku woon bitim réew wala dakaar ba ñuy tasaaroo kon mën naa ne li sos daayira mooy tasaaroo goo xam ne yoonu murit ak murit yi tasaaroon nañ ko ñu bëgg du leen lëkkale saa ne moo taxoon looloo taxoon ñu sos daayira biñ demee nag ba boor yi 1942 yu mel noonu ci jamono jamonoy Sëñ Mor Moustapha am na ñu ne euh, Sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma moom moo sosoon lu ñu naan diiwaanul muridin te lu mu ci jublu woon rek mooy euh, bennale murid yi ndax daa moom ko bëggoon bennoo la bay def aay bi suñu borom di wax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu leen mooy ci bu mu suñu borom muy diinil islaam te bu leen teqalikoo euh, rawatina nag wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum kon teqalikoo googu la doon bañ tasaaroo googu la bañ ba tax mu sos loolu bi ñu ko waxee mu Moustapha tamit mu bég ci lool ànd ci loolu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a bokk ci carte membre yi yu noonu ñi ki noonu boobu di ko gënoon tax jug mooy organiser euh, saytu lootaabe nos doxalinu yoon wi boroom xam-xam yépp bokk ci ñi nekkoon ci jamono maam Thierno ñoom ñoom sëñ Mbàkke Buso sax Mamadul Faadal ñëpp bokkoon ci biir ku ci nekk am rôle bu ñu la jox nga di ko joué ngir euh, yoon wi mën a euh, jëm kanam biñ demee ba boori 1965 it defaraat na ko soppiwaat tour yi tuddee ko ittihaadu atbaan cheikh al xadim li taawuni wa tamassuki bi diinil qawim loolu it li ci jublu woon rek mooy gën a benn la waat ndax euh, ku ne xam ne ne jamono jooju murid di ñi tàmbalee tasaaroo ci réew mi di ay gox yu fasantikoo léegi ngir mu am lu leen lëkkale nag ngir ñu bennoo ba li leen sëñ bi euh, dénk ci njàngaleem mi du naax saay te duñ ko am ay déggin yu wuute looloo taxoon mu de mu daal koy bennale euh, kon daal mën naa ne loolu la sosoo <coughs> boo demee tamit surtout bi mu koy taxawalaat am na ay réglement intérieur ak ay xam la yoo xam ne boo ci delloo dangay xam lu taxoon mu sos daayira ak lan la ci jublu woon bokk na boo demee ci article trois yi euh, ci règlement intérieur yu daayira yi mu njëkkoon sos ñu ciy wax ne li tax ñu soppal ko jubluwaay bi rek mooy may góor ak jigéen ñi nga xam ne dañ ciy bokk lu tax ñu sos ko mooy ñuy dimbalante seen biir mbooleem te dimbalante dafa bari façon murid yi fu ñu nekk ak jullit yi dañoo war a dimbalante léegi bu ñu nosee dara cib daayira ñu ciy gisante euh, weer wu jot wala ay bis gu jot bu boobaa ku nekk du umpale sa morom te lu sa morom nekk ci jafe-jafe da nga ko xam ba mën koo dimbale kon ndimbal yooyu muy ci wàllum euh, jëflante ci doomu aadama muy social wala yu mel noonu bokkoon na ci objectif yi nga xam ne tax na mu sos daayira Euh, niki noonu tamit fu euh, murid yi nekk ñu xamante loolu xëy na danañ ci ñëw buñ gënee jëm ci ci évolution yi daayira yi am waaye bokk na ci li ci gën a am solo mu sos ko mooy ngir mën a tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim ci biir murid yi masalan bi murid yi demee ba génn ba tasaaroo am na ñoo xam ne xëy na euh, Touba sori na leen ba duñ fi ñëwati bu ko defee nag mu ñu sos loo xam ne ku jóge Touba xëy na day bokk ci daayira mën a jàngal ndaw ñi ak tout tànk yi kon ngir jàngalante njàngaleem diine rawatina njàngaleem Cheikhul Khadim bokkoon na ci objectif yi nga xam ne moo tax ñu sos daayira waaye tamit di organiser yu mel ne ay cant ay màggal ak ay eh, gàmmoog yooyu kon eh, cëslaayul sos gi eh, noonu la boo demee ci article 4 bet mi ngi naan daayira du mouvement politique maanaam du loo xam ne politique moo ko tax a jug wala dara waaye loo xam ne diine moo ko tax a jug la kon loolu boo demee mu ngi ko ciy wax ay articles yu bari lu mu topp naan daayire euh, dañ koy sos waaye amut ab app buñ ko wutal kon lu bari na lu mbooteel ci ay am am mbooloo la euh, bokk na ci tamit ni ñuy falee njiit léeg yu mel noonu yooyu yëpp kon looloo taxoon mu sos ko euh, kon daal ci tënk rek daayire mën naa nekk mbooloo waaye du mbooloo moo xam ne comme mbooloo yi ci la du mbooloom politique du mbooleem way waaye mbooloom diine la moo xam ne dañuy lëkkaleew bokk gis-gis bokk jëmukaay ngir mën a dimbalante mën a xamante mën a tasaare njàngaleem sëñ bi ak di saytu mbooleem loo xam ne yoon wi da koy soxla bu baax a baax kañ la gën a fës nag biñ demee ba ku ne xam na ne euh, am na bekkoor bu metti bu amoon ci boori année 69 yi ci loolu moo taxoon ba murit yi ku ne xam na ne seen koom-koom ñu ngi ko gënoon a sukkandiku laataa ay année 70 yi ci wàllum bay ak yooyu toor yeeg yooyu lañ nekkoon bi bekkoor bi ñëwee nga xam ne mbay mi nanguwutoon ci la nag tàmbalee dem ay Dakar ak yooyu jëf seen ñaareel ponk ci murit muy yaxantu muy euh, commerce dem ay march Sandaga bu ko defee bu demee foofu ñoom ak euh, Touba danañ xaw a sore ñu xawaasee nag dispersé wu dem ci liñ naan ville yi ci la nag daayira gënoon a am solo gën a am rôle bu muy joué muy murit ya fa nekk ci ci Sandaga ak yeneen dëkk yi ay ay làmbaay ak ci la notion de daayira gën a ëppee solo biñ demee ba ay année soixante quinze jëm kaw nag beneen ñetteelu ponk bi nga xam ne ci la murid yi gën a amee doole muy wàllum migration ñiy tukki dem dem dem dem dem Dakar ñii dem Amérique ñii dem Espagne ñii dem itali notion de daayira tamit gën a amaat beneen rôle bu muy joué muy ku ñëw laaj fu daayira murid yi nekk boo demee ñu toppatoo la say këyit dimbale la taxawu la ba nga installé wu. muñ demee ba ci kanam tuuti nag daayira bi léegi nekkatul mbir moo xam ne. Euh, waa ñi newoon ci àll bi rek ko moom waaye dem na ba dugg nag ci barabu jàngukaay lu mel ne sosuk daayira daayira des étudiants mourides vers les années soixante quinze ak daayira yi nga xam ne bitim réew lañu nekkoon muy étudiants yi nga xam dañ daan jàng réew yi ci tubaab bi ñoom ñu soso ñoom ñëpp nag bi ñu sosoo ñuy joué ay yoo xam ne dañul di ko joué ba suñu jamono yàlla yi kon daal eh, ci ci tënk rek cosaanul daayira mooy jamonoy sëñ bi xëy na soxlawu ko woon ndax ndax ndax sëñ baa ngi fi woon ñu ngi ko daan gis murid yi tasaaroowuñu woon biñ demee ba tasaaroo nag ñu sos daayira ngir be benn benneeku ngir nekk benn xamante dimbalante di organiser ay ndaje ngir ngir fësal njàngalem sëñ bi rawatina ngir eh, tasaare li nga xam ne mooy njàngaleem bii ne ak di jàngaleem ci seen biir kon lii daal mooy cosaanul daayira ak ni nga xam ne eh, doxe ne ko ay jéego ba suñu jon yam na teel yi nga xam ne daayira yu baree baree baree am na ay xeeti daayira am na am na daayira yoo xam ne masalan sëñ bi la ñuy jokk directement nga xam ne moom rek la ñuy liggéeyal. foofu sax fi laa bëggoon a ñëw. Mhm. ci ñaareelu laaj bi. Mhm. mooy ginnaaw ci point bu njëkk bi. Mhm. Eh, bu ñu la deggee day mel ni dañu xam ne kon daayira xeetu kuréel la goo xam ne. day mel ni dafa taxaw dafa sosu ngir mën a fexe ba doxiinu yoon wi ak doxiinu murit gi. jamono ji nekk mu mën a méngoog moom. ndax ni nga ko waxee ci njëlbeen ga. Eh, mbooloo mi xëy na tasaaroo wu ñu doon. barab yu wuute mhm. ba tax na kon laaj laajutoon ñu defaat yeneen kuréel mhm. ginaaw boo xasee doon murid rek yaa ngi ci biir mhm. sëñ bi jege na la li ñu soxla lépp tamit jege na waaye nee ba tasaaroo gi am dëkk yi wuute sorente laaj na ñu gën a nosuwaat taxawal ay kuréel yoo xam dañu gën a mën a adapté wu ci eh, ni yëf yi yokk ak ni ak ni mu tasaaroo eh, kon day mel ne objectif yi nga xam ne moom moom moom la moom la wala jubluwaay yi nga xam moom la sëriñ indi ba tax yoonu murid sosu daayere benn jumtukaay yi nga xam ne day taxaw ngir du ko sottal yaa ngi ko doon junj sànq mooy kon ku wax loolu da nga xam ne kon daayere nekkul benn mbooloo moo xam ne rek dafa nuroo mm-hmm. ndax euh, norm bu demee noonu war naa mën a am kon ay xeeti daayira mm-hmm. bëggoon bi ñu bëggoon defal ñu benn typologie maanaam mm-hmm. xeeti daayira yi nga xam ne am na ci yoon wi xëy na ca njël bi sosu ga ba léegi nii dana jafe ñu wax ko waaye yi yoo xam ne fes na daal ci xeeti daayira yoo xam mën nañu jàpp ne bu ñu waxee daayira am na daayira boo xam ne ci lii lay dox xeeti daayira yoo xam ci nangam ci nangam lay dox yan xeeti kuréeli daayira nga ñu mën a citeel yoo xam ne am na ci ci ci ci jamono ñu bàyyi ko xel. Mm, jërëjëf suñu maam euh, comme ni nga ko tënkee rek noonu la ndax mbir mu nekk boo ci nekkee da ngay war a xam lan moo tax mu sosu ak yéen jubluwaay yu la am te jubluwaay yi rek mooy benn le murit yi ba gën a mën a jàngalante jàngaleem euh, sëñ bi te loolu sax li koy gën a firndeel mooy xëy na yéen génn génn boo demee bitim réew murit yi nga xam ne judd nañ bees te xëy na mosu ñëw ñëw Touba. importance bi nga xam ne daayira mi ngi koy suyee loolu ci euh, jàng mi ak mën a fexe ba euh, taqoo ak euh, sëñ bi fu ñu mën a nekk ni ki noonu xamante seen biir léegi nag ci noonu comme ni nga ko laaje am na ay xeeti daayira yu baree baree bari yu am waaye yi ci ëpp solo wala yi ci gën a ràññeeku mooy daayira yi nga xam ne ci sëñ bi la ñuy jokk bu ñëwee sëñ bi nag mooy ki nga xam ne moo fi tegal moo fi teewal Cheikhul Khadim muy xalif général de Mourides daayira yooyu bari na ay exemple am na ci daayira yoo xam ne beneen ñaareelu xaaj mooy daayira yi nga xam ne euh, ci ab sëriñ lañ jokk ñoom seen sëriñ ndax mbooloo la moo xam ne dañoo am ku ñu jox seen bopp ñoo it am na ay daayira yu dem muy ñaan daayira yi nga xam ne kër kenn la ñuy jokk waaye duñ jokk directement ci xalif général des mourides donte ka ñuy jokk moom it xalif général des mourides moom mooy dox seen digganteeg moom léegi nag mbir mi gën naa évoluer ba am na daayira yoo xam ne daayira Euh, mën naa ne ci njaboot la ñuy bokk muy mel ne daayira sëti siñ diw wala daayira sëti siñ diw yooyu am na ci ay xeeti daayira yoo xam ne ñu ngi koy gis waaye ñoom ñëpp mën naa ne seen mission ak seen objectif daanaka benn la muy toujours euh, bennoo ak dimbalante ak yaatal njàngalem Cheikhul Khadim ba ci noonu am na ci daayira yoo xam ne euh, ñoom ci wàllu xam-xam rek la ñuy yëngu nga xam ne dañuy tasaare njàngaleem sëñ bi rek moo leen moo leen moo leen jubal la nag daanaka daayira yëpp waaye daa am ñu ci gën a fees ñu mel ne Rawdu Rayaahiin wala Muxaddamatul Xidma bii ñu nekk nga xam ne mën nañoo jël exemple ci moom ci doxalinu daayira ak ak ak solo soo xam ne am na ko ci yoon wi daayira la bopp wàllum diine moo ko gën a tax a jóg donte ay dimbalante am na ci biir waaye taxawu jumaay Tuubaa ji euh, organiser ay conférence ay ay waxtaan yoo xam ne ci diine la jëm rawatina ci màggal gi wala ci koor gi wala ci gàmmu gi ak di former ay ñoo xam ne ci euh, ay nodd ak yooyu la ñuy yëngu am na ci yeneen daayira yoo xam ne ci wàllum organiser ay mbir la ñuy gën a nekk loo xam ne lépp loo xam ne xew-xew yoo xam ne am na ci yoon wi te loolu ci objectif yi la woon di ko suñu Cheikh waxee woon ci article 3 euh, boobu ci wàllu daayira muy organiser ay màggal ak ay gàmmu loolu mën nañ ci cité daayira bu mel daayira bu tarxiya ci organisation li muy amal du mel ne bu yàggul rek ci euh, euh, journée boobu nga xam ne moo amoon mu journée xasida bi moom Cheikh Mamadou Mountakha moo ko defoon ngir ñaanal askan wi ci ñaar yooyu mu waxoon moo ko taxoon a jóg muy nawet bi barkeel ku ne gis na ne nawet bi allah ak it euh, mbas mi tamit wàññeeku loolu tamit ba tey macha allah loolu mu joxoon ko plus particulièrement daayira Hizbut Tarqiyyah ñu ànd ci ak Cheikh Cheikh Hamsatou Mbacké mu suñu bu loolu am na ci daayira yi am na yeneen daayira yoo xam ne moom it ci wàllum infrastructure la ñuy gën a yëngu sax wala amal lépp loo xam ne sëñ bi yitte woon na ko ci Touba mu ne daayira Touba ci kanam daayira euh, Toscane daayira daayira waa Chine daayira bitim réew yi ak daayira Madawul Fawzeyni ak yeneen daayira yi kon daal typologie daayira yi am euh, ak ak ak xeeti daayira yi am bari na lool muy boo xam ne sëñ bi la jokk boo xam ne ci keneen moo dox seen diggante digganteeg sëñ bi nga xam ne ñoom ñu jokk ci sëñ bi fu si xalifa général des mourides mën a tuxoo rek ci moom la ñuy dem moom la koy jébbal am ñoo xam ne ay sët lañ waaye ñëpp rek ni ma ko waxee seen mission mooy dimbalante yaatalante xamante wane njàngareem Cheikhul Khadim ak di lépp loo xam ne sëñ bi ak yoon wiirte woon na ko rek ñu waat dox kon yooyu daal xam naa mooy daayira yi nga xam ne cité nañ ko bari na yoo xam ne tamit ku nekk mën na cee gis boppam. dégg la jërëjëf suñu blaat daa mel ne bu ñu la dégg woon dañu xam ne kon daayira dafa mel ne euh, ab jumtukaay la. jumtukaayu liggéey la. boo xam ne euh, wàllu goo demee da nga ko fekk. Mm-hmm. wàllu goo fekk ñenn ñu nekk ca la ñu yëngu rek. Mm-hmm. daanaka am nañ cib daayira ñooy ñooy yëngu ci wàllu xam-xam ñooy ci wàllum faj ñooy yëngu ci wàllu menuisier yëngu ci wàllum wàllum euh, wàllu ñooy dawal ay oto ñooy nekk ay chauffeur borom sareet yi ñenn ñu nekk rek la yëngu taxawal nañ ci ab daayira taxawal defal nañ fexe nañ ba nekk mbooloo moo xam ne dañuy fexe ba lu yoon wi soxla lu dëkk bi soxla ñu di ca mën a taxaw te jaare ko ci seen seen mbooloo mooma loolu bu ñu léegi dañu xam dañ ci xamee ne kon euh, jëmmi daayira euh, benn benn lu am solo loo xam ne maanaam lu war lu war a mën a nosu la maanaam bu no bu nosoo wala bu ñu xamee dëgg-dëgg li ko tax a jóg mën naa jariñ lu bëree bari euh, yan njariñ ak yan ban ban taxawaay moom nga jàpp ne daayira war na ko mën a taxaw ci yoon wi wala sax mu taxawee ko ba pare te mu nekk loo xam ne tey jii ku ne xam ne ne mënutoon a ñàkk te bu doon daayira mën naa am wala bu daayira amutoon wala nos gi nga xam ne ci la daayira dox bu amutoon dana doon na jafe ñu mën caa yegg euh, macha allah euh, yëfi daayire daa yàgg fi ne nii lu yitteel tubaab bi la nu ko ñaan Sophie Bova ba bindkat bu mag la boo xam ne bind na ci yu bare baree bari boo demee États-Unis am na seen euh, gouverneur wala dara boo xam ne dafa seetlu woon ci daayira murid yi euh, rôle bi ñu joué ci Amérique rawatina fa mu nekk surtout ay ay ay ay dëkk yu mel ni ay Harlem mag yooyu yëpp dañoo gisoon ak yàqute gu fa am mais bi daayira murid ñëwee rawatina ci diggéeyu Cheikh Amadou Mountakha ñu gis nit ñi ni ñu soppi ko bu baax a baax a baax rawatina ci wàllum yar mu xam ne lii kon lu am solo la moo tax la boo xam ne euh, euh, bon phénomène social la boo xam ne lu liiteel euh, bindkat yu bari la comme ni nga ko junjee daayira rôle bi nga xam ne mi ngi koy war a jouer ci yoon wi wala mi ngi koy jouer mën naa bari lool mën naa ne dana jouer rôle diine mën naa si rôle yokkute ci wàllu koom-koom muy surtout infrastructure yi ak euh, développement yi mën naa jouer aussi rôle boo xam ne rôle euh, xam-xam la bu dee mission yi nga xam ne daayira yenn yi ñu ngi koy amal ci wàllum xam-xam mën naa cee jël exemple lu mel ne Muqaddamatul Xidma ni ma ko waxee woon ak Rawdu Rayaahiin di organiser ay conférence yoo xam ne ci diine la jëm ngir yaatal njàngaleem sëñ bi surtout ci bind ay téere ak di sotti ay téere loolu rôle la boo xam ne am na daayira yoo xam ne ñu ngi koy joxe bu baax a baax raw Rawdu Rayaahiin euh, màggal gu jot daanaka dana génne ay téere daa Muxaddamatul Xidma gi tamit conférence yi daan organisé ku ne xam ne ne seen téere bu siiw boobu nga xam ne def nañ ci ay thèmes yu wuute yoo xam ne yu am solo la loolu rôle bu diine la ak yaatal njàngaleem Cheikhul Xadim ak yaatal njàngaleem islam waaye tamit ba tey rôle bu diine beneen bi muy joué mooy ku ne xam ne ne jumaa ji am na ñoo xam ne ñu ngi fiy ñëw xamul nuñ fiy nekkee daayira Muxaddamatul Xidma volonté wu ci biir murit gi ne lii kan man maa koy def yoral sëñ bi jumaa ji loolu tamit ab rôle bu am solo boo xam ne ñu ngi koy joué ci la te bu doon doon daayira la kon loolu mën naa bañ a am di noonu tamit ba tey di former ay noddukat yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk te kon ne xam ne nit warta jékki-jéer du nodd jug di nodd nodd ak li xaam dafa xaw a am ay sew-sew yoo xam ne bu doon rôle bu diine bi daayira du joué rawatina daayira Muxaddamatul Xidma kon du ñu organiser ba muy jur résultat yu mel noonu nga xam ne yoon wee ko soxla te kenn jugut def ko il faut am mbooloo moo xam ne dañuy takku am luñ gëm am luñ bëgg-bëgg ñëw jog ci loolu kon loolu rôle boobu itam rôle bu diine la boo xam ne ñu ngi ko joué bari ci ay daayira yu bari yoo xam ne euh, rôle diine mën nañ koo fekk foofu ñu ngi noonu daayira mën naa joué euh, rôle wàllum fexe ba lépp lu yoon yittewoo ci jumtukaay daayira jug amal ko loolu lu mel ne tapi jumaa ji rek ay ñoo ko jënd Euh, lu mel ne euh, Kër Sëñ Touba Daaru mën naan daayira bu mel ne ma Matlaboul Fawzeyni waaye ci hôpital Matlaboul Fawzeyni nga xam ne daayira yoo ko tabax ak yi nga xam ne yoon wi soxla na ko ci wàllum ay organiser dara yooyu yëpp daayira yoo koy joué ba tey mën naa joué rôle bi ma waxoon sànq muy rôle euh, infrastructure et développement muy lépp loo xam ne gis nañ ne Touba soxla na ko te xëy na kilifa gi bëgg na ko mu mu wax benn daayira mu mu sottal ko lool loolu mën nañ ci cité daayira Touba ci kanam nga xam ne assainissement bi rek lañ ci liggéey lu am solo la yoo xam ne fexe nañ ba yoon yu bari yu daan taa amatut te loolu ab daayira bu takk ñoom ñoo ko def bu doon toon rôle bu am solo bi daayira joué kon loolu mën naa bañ a am ñu ki noonu amal ay ay ay ay ay tëli ak ay bind ay ay forom yu am solo yoo xam ne waxtaan wu am solo lañ fay def nga xam ne lépp lu yoon wi soxna rek am na benn daayira boo xam ne mën na loolu mbooloo mu takku li ma koy waxee boo xam ne bokk nañ gis-gis ak jëmtukaay daane nañ liggéeyal sëñ bi ci lii mu soxla ñun takku nañ danañ ko def kon daal am na rôle yu bari yu am solo yoo xam ne euh, ku ko xool gis ko ku ko laamu daj ko yoo xam ne daayere mi ngi koy suyee ci yoon nga xam ne day mel ne dañ naan kat dii kat day wane ne daayere munta ñàkk day wane ne mbooloo moo xam ne jug na di dox lii munta ñàkk waaye loolu nag li ma ciy leeral rek mooy mën ngaa bokk ci daayere yu baree baree bari mën ngaa bokk ci daayere bi bokk ci daayere waaye pas-pas bi rek mooy fexe ba li sëñ bi bëgg moom ci yoon wi am fexe ba ak ak nosu am ngir jëmmal bëgg-bëgg sëñ bi ngir liggéeyal ko ci wàllum diine wàllum xam-xam wala wàllum soqali loo xam ne am na ko te loolu lépp sëñ bi ñaan na ko ci ma dal foofu seen yéen ñi ay waxam ne comme daan rôle yooyu ma joué dëgg yooyu ma wax muy diine yaatal xam-xam ak euh, benn la ak dimbalante waaye tamit ak fexe ba dëkk bi koom mi di jëm kanam waaye it mu dox baax daayira yaa ngi dund daayira yu mel ne daayira euh, commerçant yi ñoom it gis nga université bu bu suñ Mamadou Muntaxa boobu raw dara yaa xiin ñoo yor wàllum jàng mi ak fexe ba xalaat UFR ñu fi am ak nan la ñuy jàng loolu bu doon daayira ak loolu bu am solo bu muy am kon loolu mën naa jafe bu baax bu ko état bëggoon tey jii na jafe ndax du gis mbooloo moo xam ne organisé wu nañ ngir defal yàlla te daayira li ma koy maa ngi ko bëgg a wax article yi bokk na ci fi ñuy jëlee seen ay koom mooy dañuy dañuy sasu sasu mooy ku nekk di jël dara lu mel ne 1000 francs war a dara joxe ko kon fi ñuy jëlee am te boo ko joxee doo ci xalaat ñu delloo la dara waaye da koy def jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu it fi la ñuy jëlee am koom pour mën a réaliser mboolem projet yi kon lu am solo la loo xam ne jàpp naa ne société bu ko amoon bu ko doon def fexe ba am mbooloo moo xam ne bëgg nañ doxe leen am bëgg nañ développement am ku nekk di jël salaam am di ko joxe ngir mën a réaliser yi nga xam ne mbooloo mooy doole kenn nit mënu ko bu boobaa lépp luñ bëgg danañ kam te loolu e-, Touba exemple la ci mbooleem lu yoon yu mosanaal a mbooleem lu yoon yu mës bëgg mbooleem lu suñ mës bëgg daayira ñoo ko ñoo ko sottal université bi maa ngi ci woon gis nga tabax yee fa am yëpp Touba ci kanam engagé nañ daay benn benn tabax isbu tarxee yi kër xasida yi ñoo ko engagé daayira yi nga xamante ne ay commerçant la ñu Touba wala yu Dakar ñoom it engagé nañ foofu ak yeneen daayira yu sew sewaan yi nga xam ne ci këru siñ diw lañuy ñuy jokk kooko jokk ci sëriñ ba ñoom it ñu ngi jox seen addiye bu baax a baax ngir projet bi siñ mën taxaa bëgg loolu mën a sotti te loolu lépp li ma wax rek mooy ay daayira ñoo ko sottal kon mboolem boo jëlee diine boo jëlee xam boo jëlee koom-koom lépp rek rôle yu am solo yi nga xam ne daayira yi ñoo ko am ñooy tax ba loolu lépp mën a sotti kon dal taxawaay lu am solo la rôle yu am solo la ñuy joué loo xam ne bu dutoon daayira yaakaar naa Euh, yu baree baree bari bu ñu ko bëggee dana sot waaye balaa muy sotti danañ am jafe-jafe yu baree baree bari. Mm, dëgg la jërëjëf suñu Abdou Lahad bu euh, la déggee kon dana leer bu baax ñu xam ne euh, daayira mënut mënta ñàkk kon ci yoon wi. mënut ñàkk tamit ci am réew. ndax xeetu kuréel yu mel noonu ak nañu xalaat ak nañu jafe. léeg-léeg xëy na bu dee ci ko xamul mbir yooyu daa mel bu déggee daayira day jàpp ne rek xëy na ay nit ñu ànd la nii rek di dox daal waaye. mel na ne li ñuy def xëy na mhm. nekkul lu ñu xalaat mhm. nekkul lu ñu nos nekkul lu ñu lu ñu teg ci yoon daal mhm. te yaa ngi koy junj ci bi ngay tàmbali ci euh, sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo ko xalaatoon ak euh, loolu mu ko tënkewoon ci doxalin yi wutal ko sax xeetu lu mel ne xeetu moo ko mën a waxee sax xeetu ay charte yoo xam ne ci la daayira yi doxee nga xam ne bu ca tënkoo mën naa mën naa nekk lu am solo dañuy gis ci réew mi wala ci dëkk yu bari ñu gis daayira gis association lu demee noonu léeg-léeg ñoom ñaar xëy na daa mel ne ci ci ci ci ci nos ak ci ni ñuy fonctionner ndax am nañ ak wuute dëgg-dëgg mm-hmm. lan mooy dëgg-dëgg yu wuutale mbooloo moo xam ne mm-hmm. dañ koy tudde daayira mm-hmm. xëy na ñu gën koo féetale ci wàllu diine ak loo xam ne dañ koy tudde association xëy na mu xam ne moom day wut ay dana dana mën naa am sax léeg-léeg mu mu mu mu fenqoog daayira ci doxalin bokk lu ñuy def léeg-léeg lan moo leen wutale ba tax daayira ci gisin li ñuy gis daayira di ko mën a réaliser mu gën am efficacité par rapport ak yeneen mbooloo moo xam ne xëy na ña ngay dox di am lu ñu réaliser waaye dëgg-dëgg pas-pas bi ak xëy na euh, yéene ji lal daayira lalu ko lan mooy seen différence ba tax ñu jàpp ne daayira lu ñu war a gën a gën a gën a gën a jëmmal la lu ñu war a gën a fonk la. Euh, jërëjëf si ñi moom laaj bu am solo la ndaxte euh, association daanaka moo gën a xëy na mu ngi dominer daayira ci wàllum état wala yu mel noonu parce am na volet yu bari yoo xam ne foo dem dañuy def ay association yi surtout ay ASC association yi sportive et culturelle yi waaye daayira li sax ñu wuute mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk nekk am mbooloo waaye xëy na ay objectif la ñuy wuute te loolu fi la tàqali bi di ëppi solo euh, boo demee ci article yi suñ seex junjoon ci règlement intérieur yi ni ñuy falee kiy jiite daayira ak ni ñuy falee xëy na kiy jiite association sax mën naa wuute waaye surtout gëm-gëm yi ñuy am muy objectif de départ yi daayira ñaare sëñ bi leeraloon ne du mouvement politique te li koy sos jumtuka euh, jubluwaay yi mooy fexe ba xamante seen biir loolu man association dana ko def waaye association moo gën a xaw a organiser wu tuuti ci wàllum euh, administratif parce que kuy sos association ku ne xam ne ne dañuy am ñuy membre les membres fondateurs ñooy dem Euh, photocopier seen identité et cetera et cetera ngir mën a amal loolu te bu dee daayira loolu mën na koo bañ a jar loolu dama mayu sax ma gën a soññ nit ñi ci yenn comportement yi ci asso ci ci daayira yi daayira du association daayira ku koy sos gëm-gëm bi nga war a am mooy dama cee bëgg a nekk ab jumtukaay boo xam ne ngir liggéeyal sëñ bi lay doon kon loolu dana tax ñu xam kii bokk ci daayira bi kan la war a doon loolu suñ seex junjoon na ko kan la war a doon du nekk ne n'importe qui moo ñëw jóge fee bokk ci daayira bi murit lay doon bu dee association mën naa bañ a doon murit moom ku nekk mën na caa bokk mën na bañ a doon ab julit waaye ab mooy bu dee daayira murit loolu moo ci gën a fës donte ñeneen mën na cee bokk waaye ku am gëm liggéeyal sëñ bi moom mën na cee bokk waaye léegi moo ci gën a kii waaye ki surtout niñ koy fi ñuy gën a wuutee mooy ni ñuy tànnee njiit daayira ak njiitul association association ki ko formé en général mën na koo jiite wala yooyu waaye bu dee daayira dañoo war a tànn liñ naan jëwrin jëwrin la suñ seex waxoon ne moom moo koy jiite jëwrin ja nag daa war a nekk koo xam ne xam na dara nekk koo xamante ni war naa yore exemple bu murit yi ba ku ko xool gis ci li tax keneen mën a xemmeem daayira ndax daayira dana wuuteeg association ci bu nekkee cib koñ wala bu nekk ci dëkk daa war a nekk moyen de propagation maanaam di xëcc ay nit ñoo xam ne ku gis membre daayira bi xemmeem yoon wi li ñuy organiser ci ay bis ci ay ci ay semaine bu jot loolu association yi du ko def daayira normalement semaine bu jot li ñu naan daayira mooy tour lay doon semaine bu jot war naa mën ñoo organiser dara ngir yaatal fa njàngalem si ñu waxtaane ko jàngal ñenn ñi loolu kon day xëcciwaat ay ñeneen nit ñu rul bu am solo bi muy joué la ñeneen nit ñi muy xëcc mooy dañuy gis comportement waa daayira bi ñu bokk ci daayira bi ñu waxtaane leen sëñ bu ko defee ñoom ñu dugg ci sëñ bi loolu lan appel bi may lancé foofu mooy euh, ñu xam ne daayira wuute naa la ak association waaye njiitul daayira tamit daa war a wuuteeg njiitul ku jiiteb association ndax association ñaari ci folklore lay gën a dox donte dana def ay œuvre sociale ak ay ay noonu waaye daayira moom ci diine rek la war a dox ki jiite daayira bi war naa am comportement boo xam ne war naa xam dara ci sëñ bi wala mu xam dara ci yoon wi ba fu ñu ko tàllalee micro mu wax loo xam ne dana jariñ yoon wi dana jariñ ndax daayira li ma la wax rek euh, moyen la boo xam ne day tasaare njàngalem sëñ bi waaye moyen la boo xam ne mën naa xëcc ay nit kon ki jiite daayira bi war naa am nit ko xam ne ku ubbeeku lay doon war naa nekk nit ko xam ne ku woyof lay doon war naa am nit koo xam ne euh, buñ ko follee du mer loolu nag xëy na yenn saa bu jur ay jafe-jafe ñu folli ki jiite woon daayira bi rek muy def ay gàllugoos te loolu baaxul. mooy loolu loolu lépp li muy li muy junj rek mooy esprit kiy bokk ci daayira euh, lu war a dëgg war doon. moo tax daayira daal xam naa ne. waxtu bi du ñu may ñu yaatal ci loolu waaye buñ ko buñ ko nosee organiser ko membre yi ci bokk yëpp ñu xam lan la daayira di signifier hmm. lan la daayira di jëriñ hmm. yaakaar naa yoon wi hmm. euh, fu du wëy maanaam du dañ ji dem kanam te lépp luñ sumb danañ ko euh, danañ ko àggale fa ko sëñ bi bëgge te loolu lépp ci daayira lañ ko mën a jaay waaye daal ki koy jiite na xam ne daayira du association na xam ne daayira bi du yëfi boppam na xam ne liggéeyaluñ ko waaye sëñ bi la ñuy liggéeyal mu am ak ubbiku xam sëñ bi wala mu xam dara ci sëñ bi mm. waaye nag mu nekk koo xam ne koo gis rek uh, dana xemmeem bokk ci daayira boobu waaye dana xemmeem dugg ci yoonu murit kon daal loolu mm, ay kii la yoo xam ne waras mm. na koo mën a gën a xoolaat bu baax ci ñi ñuy tànnee njiitu daayira bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci daayira bi ba du ñëw rek bokk ci te xam ne tamit wuute naak association wuute naak it fondation wala leneen loo xam ne ci folklore ak wala ci politique yooyu lay dox jërëjëf suñu blat uh, nga daaneel dañuy may ñu ñëw ci mm-hmm. beneen point mooy ci mhm. wàllu mhm. ni ngi ko junj sànq ci kuy war a bokk nu muy mel ak mhm. ngir lu nu muy mel loolu day ubbi buntub suñu jafe-jafe la daayira jànkonteel ndax ku xam ne ne daayira marga li mu am solo lépp ak li muy am njariñ lépp dañu gis ay daayira yu yu am maanaa ñuy taxawal liggéey yu am solo ñu xeexee rek seen seen yëngu wàññeeku léeg ñu dem sax ba dootuñ dootuñ amati léeg-léeg tamit mën nay daayira mën nay continuer am di def yu am solo waaye dañu xam ne mënoon naa gën a mënoon naa gën a mënoon naa gën a jëm kanam ci seen doxalin yan jafe-jafe mooy gaar daayira ak doxalinam ba tax léeg-léeg ya ñuy yéene duñ ko mën a def wala ñu dem yàgg sax euh, coow di ca am muy muy muy muy muy muy tasaka indi ay yu xamul yoo xam ne day mel ne day wuute lool ak ni nga ko xamlee ci njëlbeen gi ci pas-pas bi ko war a lal ak ko war a lal ak yooyu yan jafe ba tax léegi duñ mën a àgg fañ bëggoon fañ bëggoon fañ bëggoon a jëm. macha allah laaj bu solo la muy défi yi nga xam ne wala gàllankoor yi nga xam ne ñoo mën a tax ba daayira du jëm kanam te daayira yëpp mbokk yi bu ñu koy sos daa war a jëm kanam xam ne jumtukaayu liggéeyal sëriñ bi bu baax a baax la. Euh, Cheikh Mamour Moussine Monsieur Mamadou Fadel yal na ko yàlla dolli leer am na daayira bu ñu doon sos bu tudd kuréel liggéeyal ku tedd ki moom it ci yu mel noonu lay yëngu lu mën a jël ay exemple la ci tasaare ak yaatal njàngalem sëriñ bi rawatina ci ay euh, jumtukaay yu wuute kon ci daayira yi nga xam ne ci diine lañuy dox la bokk mun mënuñu euh, bu ngeen li li gënoon mooy ngeen bañ am njiit ngeen bañ am njiit loolu daa bokk ci défi yi muy njiit ci li mën a gàllankoor ndax dane euh, njiitul daayira bi bu fekkente ne am na ñoo xam ne moo leen di indi waaye am na ñoo xam ne mooy tax duñ ci bokk daayira boo xam ne abdulaat bu sa moo ko jiite ah abdulaat da neexuma kon lu mu bokk du ma ca bokk lu daayira ba am am njariñ moom ci gàllankoor la bokk moom mi jiite moo taxoon ma doon insister ci njiitul daayira euh, kon njiit mën naa nekk gàllankoor bu rëy ci daayira moo tax ma doon wax naan da ngeen ni ànd rek lépp ku nekk di ko def te bañ a am njiit loo xam ne moo jiite daayira bi am na ñoo xam ne danañ jiite daayira yàgg ci yàggaay boo xam ne euh, dañuy dem ba jàpp ne seen moomeelu bopp la boo leen boo leen follee wala nga dind leen fi rek bi day tas kon njiit jafe-jafe bi gën a mag la bu rëy boo xam ne daayira mën na ko am mu ñu wax ne yi gën daal mooy ngeen bàyyi noonu rek ku nekk dem loolu it mën naa nekk beneen kii boo xam ne bu fekkee njiit la tamit ku baax la ubbeeku ne lool mën naa indi ay nit kon daal njiit li bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne mën na ko am bokk na ci jafe yi nga xam ne daayira mën na ko am itam mooy ñu bañ a bokk ay ay ay pas-pas bari na ci yoo xam mu tudd ay daayira daayira yoo xam ne ko tas mooy ñàkk bokk pas-pas ndax ñii dañ naan ñiñ jëm ñii ne nañ dem ne ñii bëgg ay yeneen doxalin yoo xam ne yu àdduna la ñee bañ a gis doxalin boobu wa àdduna kon li am solo mooy daayere bi ñu koy sos nañ bokk ay pas-pas te pas-pas bi benn la war a doon mooy euh, liggéeyal euh, sëñ bi ci ay mbir yu woote mbir yu bokk na ci leneen lu mën a tas daayere tamit muy ay roy comme ça ngay gis benn daayere boo xam ne euh, daa am lu muy def am beneen daayere boo xam ne defut loola mu di ko roy ci def googa far loola yàq seen yàq seen ay ay kii kon li ma waxoon rek ca tàmbali ba moom mooy indi moom moo mën a jur saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne daayira moo ko moo mi ngi koy am muy lan buñ koy sos nañ bokk ay ay jëmuwaay ay jubluwaay bokk ay pas-pas te yéen a cee liggéeyal sëñ bi te tànn njiit loo xam ne yi ma waxoon yi ma waxoon am na ko kon daal pour bañ a guddal foofu daanaka lépp wax naa ko ci tàmbali bi wala wax naa ko ci biir waxtaan wi muy buñ delloo ci ñi nañ koy sose bokk ay gis-gis ak yu mel noonu te tànn njiit loo xam ne doy na te mat na kon benn jafe-jafe daayira mën na ko bañ waaye daal jafe-jafe bi ma jàpp ne xëy na mën nga cee indi yeneen moo ko mën a gën a sas moo mën a gën a tas daayira muy jafe-jafe njiit kon lépp rek mu ngi ci njiit la. waaw jërëjëf suñu Abdoulaye kon daa mel ñoo ci war a nekk mi ngoo maanaam daa mel ay tànneef kese la ñu war a doon ñoo ci war a gën a tàmbali ca njiit la ñay bokk tamit ay tànneef la ñuy ndax day doon ñoo xam ne ñu sellal la ñu doon ñu sellal la ñu doon seen pas-pas ñu am yéene lañ ngir liggéeyal sëriñ bi tamit ñoo ci war a ñoo ci war a bokk xëy na laaj bu mujj bi xëy na moo ko mën a waxee noonu wala bokk fi ñuy daaneele ndax mel na waxtu bi mi ngi ñuy xaw a tënk yaa ngi ko doon wax ci njëlbeen gi wax ne daayira dafa mel ne benn mbootaay la goo xam ne dafa ñëw ci ab benn contexte boo xam ne laajoon na ni mbooloo mi doon doxee ñu nose ko beneen anam boo xam ne dana tax ba ñi nga xam ne xaw xaw nañoo sori centre bi ñoom tamit ñu mën a am lu leen tënk ba ñu mën a bokk ci doxiinu doxiinu murit gi di mën a bokk tam ci liggéey yi kon ndax daayira kon niñ koy nose ak niñ koy organiser ci niñ ko junjee sànq ci doxalin ak lépp ndax daa war nekk loo xam ne rek benn lay doon daayira bu nekk tuubaak ak nekk Ndakaarook nekk bitim réew ak ndax bu buñ ne daayir rek benn doxin la war a am mu jeex nga xam ne moom ni ñu ko waxee day am jawriñ euh, membre yi ci des war koo déggal wala yooyu wala boog daayir war naa war naa mën a dox beneen boo xam ne dañuy seet barab bu nekk wala dëkk bu nekk euh, lam laaj rek daayira bi tudd noona waaye doxi doxin boo xam te ne méngóog loola. waaw laaj bu am solo la euh, normalement mën naa ñoo bokk doxin ci yenn yi waaye mën nañoo wuute ci yenn yi. mën nañoo bokk doxin ci ne mboolem daayira yëpp li leen tax a jug mooy liggéeyal sëñ waaye mën nañoo wuute ay doxalin ak ay tur sax ci objectif bi nga xam ne moo tax ñu koy boobu bu fekkente ne daayira boo xam ne ci yëngu diine rek lay dox kon yeneen nii moom mën na cee bañ a mën na cee bañ a doon mën na cee bañ am wàll waaye li li ma jàpp ne moom moo gën mooy daayira boo xam ne ci lépp loo xam ne yoon wi da koo soxla rek euh, ci la war a dox muy am pàcc boo xam ne diini moo ko jagoo fu ñu mën a nekk ñu amal fa ay daara yu ndaw yoo xam ne danañ tàggat tuut tànk yi nga xam ne xëy na nekkuñ Tuuba wala sax ñu ne ngir ñu mën a xam islam waaye mën a xam njàngalem sëñ bi kon man bu ma doon man modelu daayira bi nga xam ne moom laay moom laay joxe mooy daayira boo xam ne eh, lépp cay nekk day complet am beneen wàll goo xam ne mooy saytu wàllum dimbalante muy objectif yi nga xam ne moom moom la suñu Cheikh doon doon junj dimbalante muy commission boo xam ne sociale lay doon ku xew le mu dem ca taxawu la ku amee jafe-jafe mu taxawu la dimbalal te yàlla tax ndax wa taawanu alal birri wat taqwa am beneen vole boo xam ne ci wàllum euh, organiser lay nekk organiser ay ay ay ay bis yoo xam ne ay cant la wala ay màggal ngir mu xëcc ay nit waaye tamit ngir mu man faa may ñi yor wàllu scientifique bi ñu waxtaane fa loo xam ne dana dundal diine waaye dana tax ñu gën a xamaat sëñ bi ba fil conducteur bi dox seen digganteeg moom mën naa bañ a jafe te loolu lépp nag boo xoolee am na ci daayira Muxaddamatul Xidma daayira bu ñu mën a citer exemple la am na ci wàllu goo xam ne ñoo yor diina ci am wàllu goo xam ne ñoo yor li ñuy barab yeeg jullikaay beeg yooyu yëpp am na ci wàllu goo xam ne ñoo yor wàllum dimbalante muy social bi am wàll goo xam ne ñoo yor wàllum euh, euh, communication bi muy lépp lu aju ci lu ñu war a leeral wala lu ñu war a gëstu wax ko loolu lu am solo lu ci daayira daayira doo bàyyi rek kenn yor wax ji saa su ne mu wax lu ko neex daayira doo bàyyi ñi nga xam ne euh, xamuñ ci mbir mi dara te nekkuñ ay tànnee fi tamit ñëw di wax lu leen neex loolu day yàq daayira kon daayira bi ma jàpp ne moo baax daal mooy boo xam ne euh, day ka ko jiite ku mu ne daayira Muxaddamatul Xidma man jiiti macha allah kenn du leen jam ci dara borom xam-xam moo ko jiite muy si njaayef busu imaam la loolu it bokk na ci exemple boo xam ne lu mën a cité ci ci ci kiy jiite daayira ku ku ko dégg ci daayira bi dana la xëcc yow au lieu mu doon wax difi yi mu mën a mooy day tax nga bàyyi waaye moom day tax nga ñëw na nga xam ne kon moom du bokk ci lu solo waaye lu am solo lay bokk dana taxati saa su waxee euh, yaari naw xam daal di naw jëf-jëm bokk te ku mën a former ay nit la aussi loolu tamit ci ci ci exemple yoo xam ne war nañ ko mën a mën a mën a boole daal pour njëkkantee waxtu wi rek daayira daal man bi ma jàpp ne moom moo gën mooy boo xam ne daa boole lépp am ay sous commission yoo xam ne ñoo yor wàllu ko nekk waaye daayira warata dox ci nii bàyyi ne ndax fa fam bàyyi man naa moo ëpp solo sax fa nga xam ne fa nga xam ne foofu la jàpp waaye daal li am solo rek mooy euh, objectif bi ko war a lal moom mooy liggéeyal euh, sëñ bi te jàpp ne ab jumtukaay la boo xam ne lu war a mën a sottal bëgg-bëgg sëñ bi lay doon loolu daal laa jàpp ne moom mooy type bi nga xam ne moom moo gën a mooy bu ñu xam dañ koy organiser nos goo xam ne euh, du bàyyi benn wàll gu ñu war a liggéeyal sëñ bi la maadaama jumtukaay bi liggéeyal sëñ bi la te fiñ fi ñu ko war a liggéey dafa bari kon daayira bii sosu ak ña tey bokk war ñoo nekk loo xam ne lépp lu sëñ bi bëgg rek ñoom ñu taxaw pour man ko waaye bu dee daayira boo xam ne jëmut ci wàllu diine loolu bari na daayira yoo xam ne ci waaw ci wàllu lenn rek la ñu dox tey bu bu ñu bëggee organiser loo xam ne sëñ bi dafaa soxla ñu ñu wane ñàngaleem moo tax yenn saa yi gis daayira yoo xam ne ab waxtaankat la ñuy jël moom lu ko neex lay wax sëñ bi kooku ci defi daayira la bokk yi ko gën a mën a gàllankoor mooy ñoo xam ne fonkuñ xam-xam di wax di loo xam ne sëñ bi sax bokkut ci njàngaleem ñeneen ñi ñoo ci daayira au lieu ñuy xam li sëñ bi wax ñuy xam message sëñ waaye dañ koy far réere réere fa mbiru di te loolu barina na loolu ci daayira yi nga xam ne mi ngi ci réew wala mi ngi ci bitim réew loo xam ne dëgg yàlla en tout cas euh, mbir mu am solo la moo xam ne lu ñu war a xoolaat la daal lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a lu ñu war a saytuwaat la tëraloon lu mel ni ab ab euh, charte boo xam ne moo koy lal képp ku bëgg a sos daayira kat ñu ne la kat demal ci euh, nangam sàngam ñu wax la lan mooy réglement daayira yi lan mooy charte daayira ngeen jaar ci loolu tànn njiit yi ñoom ñëpp tamit ku ne ñëw jël règlement yooyu ñu daal koy matale bu ko defee bu boobaa danañ gën a xam ne daayira am na ci yoo xam ne yu waar lay jur yoo xam ne buñ ko gënoon a organiser mën naa jur njariñu yoon wi ñoo xam ne njariñ loo xam ne lu mel ne daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi koy def ak yeneen daayira yi nga xam ne xëy na mi ngi noonu barkalla euh, jërëjëf sëñ Blaat daa ci ci tënk rek euh, mën nañu wax ne daayira wërta neenal dara kon rawatina sax bu dee ñoo xam dañoo nekk foo xam ne léeg-léeg seen seen i la soxla mën naa am dafay tumuranke boo jëlee daayira yoo dañoo nekk dañoo sori Tuubaa nekk bitim réew wala demee noonu léeg-léeg dañuy nekk mbooloo yoo xam ne la soxla ci wàllu wàll seen wàllu diine seen wàllu ak taalibe seen wàllu social sax bu daayira amul du sotti ndax fa lañ mën a jànge fa lañ mën a gisante mhm. fa lañ mën a waxtaane loo xam ne lu leen di delloo si la kon day mel ne taxawaay yëpp benn murit nee na daal lu mën a yëngu ak lu mu am am njariñ mhm. faaw ñu fexe ba yooyu yëpp ponk yooyu daal war na ci feeñ ci ak nu mën a dem boo mhm. defee bonk yi matee rek kon yeneen beneen domaine bu ñu yëngut rek day gën a jàppane ndax léegi nit ñi tamit boo leen dee jëmale ci genn wet te xëy na amuñ amuñ lu leen di soññ seen pas-pas. Mm-hmm. luy tax ñu xam li ñu nekk luy njariñ la ak lu ko lu ko war a lu ko war a lu leen ci war a puus day mel ne euh, wet gañ doon jëm mën nañu dem ba lu leen ci découragé wala luy tax ñu tàyyi mën naa mën naa yomb kon loolu day mel ne kon ëpp naa neenal genn wet wet yëpp la ñu war a soññi. Mm-hmm. waaye tamit ku cay dugg tam nga dugg ci ak yenn ju sell loolu day mel ne mm-hmm. bokk na ci li ci gën a am solo xam naa dañu lay bàyyi nga tàggatoo. na waxtu yi xaw nañoo tënk su ko defee ñu ñu delloo kàddu yi balaa ñuy gën a xaabaabal ginaaw bu ñu la sante bu baax nag ci waxtaan wi ak jotal gi. jërëjëf suñu maam eh, li nga doon junj am na solo lool surtout fi ñuy gën a xamee rôle bi daayira di am di di di di am sax mooy yéen bitim réew ga ngeen nekk. surtout li suñu Mouhamadou Mourtada daa leen soññ bu baax muy amal ay centre culturel islamique yoo xam ne dañ fay former ndaw ñi rawatina ñi nga xam dañoo juddoo ci réew yoo xam du ñuy réewi diine. Euh, te sori nañ loolu muy rôle boo xam ne mën nga ne euh, boo ko xoolee foofu daayira yi fa ëpp solo mooy yi nga xam ne ci diine sax la ñuy gën a dox que di organiser ay mbir rek kon loolu loo am solo la kon daal ñu ngi soññaat murit yëpp ñu gën a am pas-pas bu ñuy bokkee ci daayira te xam ne jumtukaay bu ñu war a liggéeyee sëñ bi la sëñ bi daa mat sëkk kon yow mi nga xam ne yaay sosub daayira wala yaa cay bokk na nga fexe ba mu nekk jumtukaay boo xam ne Euh, day mat sëkk ci liggéeyal sëñ bi ba fépp foo xam ne sëñ bi soxla na ko dara rek ngeen taxaw bëgg koo amal ji ci daayira tam ñu xam ne liñ yor euh, du luñ moom du ñu donn waaye ngir liggéeyal sëñ bi la te sëñ bi ne ku koy liggéeyal war ngaa am euh, maanaam mbir mu diis la daal moo xam ne ku ci bàyyiwul xel mën ngaa jàpp ne dangay liggéey fekk ne da ngay gën a lor sa bopp rek di sant waa daayira mu xaddamatul xidma mënoon na doon mboolem li nga xam ne solo nañ ci bi ña nga ca muy ci diine ñi ngi koy yaatal di amal ay jotaay yu mel nii rawatina ba koor gi ubbeeg léegi am na waxtaan yu bari yu ñu fi def yoo xam ne amal noonu dañ koy fas yéenee waajale tamit eh, eh, gàmm gi nga xam ne dinañ ko amal fii ci jumaay Tuubaa comme ko daan defee waaye it di former eh, ñi nga xam ne ci diine la ñuy yëngu rawatina noddukat yeeg nangam nangam defar sàpp yi nga xam ne. lu am solo la ci diine ndax bu sàppe jubul rek daanaka ko dëngal moom indi saa sal na ma ci waxoon ñëpp ko xam kon rôle yu ñuy joué ci wàll gu nekk lu sëñ bi soxla rek ñu nekk nekk ay jumtukaayam kon képp koo xam ne mu ngi ci daayira war naa mën a xool di roy ci daayira yu mel nii yu am solo yi nga xam ne ñu mel ne Touba ci kanam ak Moukhaddamatoul Khidma ak yooyu ñu ngi ci bu ko defee ñu xam ne jumtukaayu sëñ bi la boo xam ne lépp luñ bëgg sëñ mën na ko def kon ñu ngi Euh, sant ñëpp ñu ñuy euh, bàyyi xel di sant kilifa yi nga xam ne ñoo toog nii xëy na ñoom mënoon nañoo def waxtaan wi sax ndax ñun dañu ci doon nab nab bi nag di sant bu baax it ni nga organisé bi ak yow gis nañ daayira yi nga bokk yëpp ni ngi ci rôle bu am solo bi nga ciy joué muy wàllu diini surtout ci daayira yi nga xam ne ci université yi lañ nekk sax ñooñu tamit euh, war nañ ko gën a xoolaat gën cee bàyyiwaat xel ndax xam ne foofu moyen la boo xam ne ñëpp di euh, daje la waaye am na mm. daayira rôle yu am solo yu ñuy def foofu yoo xam ne surtout ci wàllum scientifique ak yaatal njàngalem euh, sëñ bi di sant ñëpp di ñaan suñu boroom defal ñu tawféex ba màggal gii li ci sëriñ bi diggee woon lépp ci ay cant ak li mu ci diggoon ci ay gëneel lépp suñu boroom may ñu xewal bañ mën ko cee am wa axiru daawaana ani alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullah suñu plaat ñu ngi lay santaat bu baax a baax di la jaajëfal di la ma masaw ci coono yeeg xat-xat yi ndax ku ne xam ne ne màggal moom koo ci yëkkati rek euh, bàyyiloo nga ko lu bëree bëri kon buñ mënee am ak jotaay bii dañ la ci sant bu baax la ci jaajëfal ñaan jéegooy demeeg yu dikk yeeg coono yëpp rek mu nekk aw yow nga dayee ceeg lu yi sa njortu di sant mbokk yi nga xam tam ñoo ñu doon euh, teewlu ak du ñu bàyyi xel di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan kàddu yu njariñ yi nga xam ne moo fi rot eh, yàlla nañ ko jariñoo te di leen jox ndaje ëllëg allah ci jataay yi nga xam ne daayira baaxoo na ko def ngir di ko dundale bis bi ñu ànd ak yéen beneen jataay suba incha allah di daaneel suñu kàddu rek ci kàddu yi suñu la daaneel eh, taje léegi rek muy ci wàllu solo si daayira ak ak li nga xam ne moom la taxawaay yi war a am eh, day day dañ koy dañ koy tëje rek ci ni mu ko waxee sànq rek mooy ne euh, lu mu mën a doon rek ci ci lu jëm ci diine lu jëm ci yàlla day mel ni pas-pas bu sell daal dana ci am solo lool ak euh, am yéene liggéey am yéene liggéeyal sëriñ bi daa mel loolu daal mel na ni buñ ñu ko jiitalee leneen li des lépp mën naa oyof leneen li des lépp mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa jàppandi des tamit mooy fexe ba mm, lu jamono andi tamit te mu nekk lu am njariñ ñu jariñoo ko ndax alxikma dallatul mu'min ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci niñ ko nettalee bu misaal mi nga jox ci daayira mu xadamoon xidma li ci la bokk ndax ku ne xam na ne daayira bi ku xam histoire am ak ba muy sosu ci bale jumaa ji la tàmbalee woon sëñ Afe mi ngi koy wax bu yàggul rek ci ay bale sëgg lañ daan jëfandikoo daanaka loolu rek moo nekkoon seen liggéey bale bu bëccëgee ñoo defar sàppe dem ñibbi léegi ku ne xam na ne yaatu na ba jataay yi ñuy def ak wàllu communication bi ni mu tase nii loolu ku ne xam ne ne jamono moo dox ba andi ko tam nekk lu am njëriñ lu mën koo jëriñoon kon tamit booy liggéeyal sëñ bi moom rawat na nga ko ci daayira bañ tënk sa bopp daal bañ a yemale bañ a wutal sa bopp ay limite loolu tamit dana ci baax fexe ba lépp loo xam dana tax njàngale mi tasaaroo mu mu mën egg ci ñi nga xam ne war nañ naa war nañ caa ñëpp rek loolu nga tamit nga mooy yemi laaj nga jéem koo am ngir mën a yaatal liggéey bi loolu tamit dana ci am solo lool kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp rek di leen santaat bu baax di santaat kilifa yi nga xam tamit ñi ngi àndoon ak jotaay bi di di ko teewul muy waa commission culturelle bu Moukhaddamatoul Khidma ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoo ñoo kilifay daayira bi nga xam ne seen ndigal lañ doon waxee di ñaan suñu borom yeeg bis bi ak jàmm te defe ko ni ko borom bëggee te làq tamit li nga xam moom la ci diggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر صباح وفي إخدام خير الورى بدا صباح وفي إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر